Goro Sock la waaye seen naa léegi Gris Bordeaux ndeysaan Goro Sock la jee xoolal Papa Sow ak Mouss ma xoolal Papa Sow xeex ba xeex ba lamb ji gaw ma mu egg. gaw ma mu egg. lamb ji gaañ nañ Papa Sow. gaañ nañ Papa Sow mu ngi si suuf. ko mu ngi Papa Sow mu ngi mais nañ daw Cheikh Papa Sow Cheikh Omar waaw loolu loolu la ñu wax commencé nañ tam saisi commencé nañ tam saisi waa si tey ñooy damm saisi waaye taa ngi nii ci biir géew bi Lukau. Lukau jambar. Lukau lala. Lukau lem. Lukau lukau. Hey, jump! Jump! ba tey Papa Sow moo ngi ci médecin yi ñu di ko xool mooy deret ji effectivement fa bari deret ji bari na donc est-ce que dinañ ko bàyyi mu bëre parce que pour man da baax yaram yaram waa yaram moo ngi ci Lamine Samba mu ngi ci Lamine Samba mais tey logiquement bu doon bu doon en plein combat ko dal dañu arrêté combat bi Cheikh donc avant combat la ko dal peut-être que possibilité mën na am mais xamaguñu l'essentiel papa mu ngi ci souf waye bo xolé papa nàcc na Cheikh Omar. nàcc na non nàcc dara ci bari na bu baaxa baax. waye dara ci bari na nga nak xom bi ni mu Cheikh Omar. ak xom bi goro sok mo moo yor benn mbuus xam ne mbuus sarax la di dem pour jëli pour yóbbu sarax bi. papa dab ko nangu sarax goro sok mo dal dem ci yoon bi gaay boy gaay yenen kan adversaire bi teego ne ko do dem si la papa jël sarax bi diko ko yóbbu. di yóbbu ci tëggal ci sey diko yóbbu foofu fa la affaire bi amé

ne woon naa la lamb ji doom Cheikh Omar mu ngi noonu ñu ngi jéem a lijjanti service médical bi pour ñëw yóbbu ko Cheikh Omar mu ngi noonu combat bi amat Papa Sow a ngi noonu Cheikh Omar ñu band bopp bi cela veut dire que kon blessure bi sérieux na mu ngi jéem a ñi mu doon àndal boo xoolee combat bi at yi mu duré bari na mais malheureusement fi mu mujjee. kenn foogu ko woon Cheikh ñaari mbëri ku ci nekk la nga waroon indi indi nga ko ci ngor indi nga ko ci ngar mi indi nga ko ci jom Papa Sow waaw bu ne dafa bëgg a bëre du ci moom la di ci moom la décision bi aajowu mooy ci médecin bi lay dépendre mooy médecin bi mooy xool est-ce mën na bëre ou pas mais de toute façon bu fekkee ni que Papa dafa amoon périmètre waruñu ko woon bàyyi mu romb périmètre am. ok Siteu tamit aussi waru woon romb périmètre am. loolu la ñu wax donc nag lambi Siteu. ah du yomb aux encadreurs ou bien aux organisateurs. Ah, laaj naa la loolu mooy wax ji. ah ou bien les encadreurs. parce que si l' encadrement était là. waaw waruñu ko woon bàyyi muy dem di jëli sarax bay dem jëkkër Siteu yi di leen ko sarax. et au force de l'ordre donc am na. mais deret gi ma na. ah ma. parce que bu bu doon en plein combat mu am blessure noonu combat bi dañ salari jiin bismillahi ma dee ci door mam góor gi njaay sutub maram jiin bàyyi mam maram njaay réew maa ngi may soow te ko réew mi soow booba dangaa siiw bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu ma jiin booba tuuti booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dal damay xeeb nay bari nay baree bari